am na naar bu masa wax Sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo kay fa xaalu ko na def sëriñ bi ni ko bil xayri wal aafiyati jàmm rek ba ca yooni ñetteel wax mu ni ko tarku maa la yaani bàyyi lu nu amalul njariñ wallahu aalam siiw na moom nettali boobu